dañ ñëwoon fii tey pour rencontrer si le comité départemental de Mbacké rencontrer également monsieur le maire de la commune de Mbacké partager ak ñoom benn projet boo xam ne nii dañ koo war a mëne euh, fii ci département de Mbacké mu bokk ko ak yeneen ñaari département ci Sénégal muy département de Guédiawaye ak euh, département de Thiès donc projet bi dañu seetlu ci biir Croix-Rouge que ni mbas mi nga xam ne moo nekk ci réew mi bi mu ñëwee ba léegi dafa naxasaayal lépp loo xam ne nii économie la woon boo xam ne am na ko ci réew mi lépp loo xam ne activité yoo xam ne nit ñi daan nañ ko def euh, mbas mi na koo naxasaayal wut ay partenaire am yu mel ni Croix-Rouge espagnol ñu wut ay moyen wut ay financement pour jàppale jigéen ñi nga xam ne ñoom ñooy nekk ci fii ci département Mbacké ak département bu Guédiawaye ak département bu Thiès pour xool nan la ñuy euh, yëngalaat yëkkaliwaat encore seen suqaliwaat encore seen économie donc projet bi ñu ngi ko tënk ci ay pànc yu mel ni Euh, formation renforcement de capacité ci li nga xam ne moom la jigéen ñi di liggéey muy wàllu transformation muy wàllu teinture muy wàllu commerce loo xam ne ay activités loo xam ne jigéen ñi dañ ko daan def ñu renforcer seen i jox leen ay jumtuwaay jox leen ay moyens pour que ñu mën koo yëkkatiwaat muy dem projet tam jàpp na tamit lépp loo xam ne nii ay produits d'hygiène ak ay kit d'hygiène yoo xam ne dañ ko war a yóbbu ci askan wi ñu boole ko ci ci li nga xam ne nii moom lañ ñuy joxe jox leen ko daa ñi nga xam ne ay néew doole lañ ñoo xam ne tamit mbas mi yàq na seen liggéey ndax mi tax na mënatuñoo dem ñooñu aussi projet bi jël na dina jël ay jëmtuwaay pour jëm a xool nu mu leen di jàppalee pour ñu mën a am am lu ñu dundee jëppale leen seen dund dafa leen lu mel ni cash transfert jox leen ko ci localité yi nga xam ne moom lañ cité loolu tamit askan wi nga xam ne tamit ñoo dëkk ci dox gox bi di gox Mbàkke ñu jël jigéen ñi nga xam ne ñoom ñooy seen i morom seen i nawle ñu ànd ak ñoom defal leen ay activités de sensibilisation pour ñu gën a mën a moytu mbas mi ndax mbas mi boobu ba léegi mi ngi ni jeex na waaye jeexagul comme ñu ànd ak ñoom def ay activités de sensibilisation maanaam suñ ko mënee tënk loolu daal moo nekkoon li nga xam ne moo ñu fi indi woon gis nañ nag monsieur le maire waxtaan nañ ak moom kontaan na ci liggéey bi nga xam ne nii moom la Croix-Rouge di def fii wax na tamit digganteem bi mu seq ak Croix-Rouge wax nañu tam disponibilité am pour accompagner projet bi nga xam ne nii moom la ñu wax ndaxte bi ñuy bind projet bi bu ci maire yi dugalul woon seen loxo projet bi du mën a jàll tam moom moo accepté on bind lettre bi nga xam mooy lettre de soutien donc ñu ngi gërëm bu baax monsieur le maire. comité bi aussi engagé wu ci njiitalu président mbay sal engagé wu pour jàppale femmes volontaires yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fi ndaxte ñoom am nañ association de femmes volontaires bu dynamique bu nekk fii ci Mbacké donc femmes volontaires yooyu. ñoom euh, engagé wu nañ ànd ak seen président ànd ak seen comité départemental pour vraiment lépp loo xam ne dig ci wax nañ ko ci projet bi ñoom ñu jàpp ko pour mu mën a avancer donc ñun aussi niveau national suñu rôle rek suñu wàll mooy jàppale leen mooy dimbali leen ba comité départemental bu Mbacké jaare fi soqali li ñu fi nii nii tey du loolu rek la Croix-Rouge liggéey Mbacké ndaxte Mbacké département Mbacké yaakaar naa ni ba mbas mi commencé sax ba léegi euh, yaakaar naa ni lépp loo xam ne Croix-Rouge sénégalaise sumb na ko Mbacké ngi ci biir donc activités yi ñu déroulé yëpp Mbacké bokk na ci département yi moom la ñu cité donc activité sensibilisation yi activité surveillance yi activité évacuation nocturne yëpp yi nga xam ne Mbacké doon na ko def ci mbas mi yaakaar na niveau national Croix-Rouge sénégalaise dugal na ci loxoom jàppale leen ci fàttaliku tamit defoon nañ fi programme bu mag muy programme prise en charge de la malnutrition aiguë sévère boo xam ne Croix-Rouge ak croix française ñoo ko defoon fii defoon ko ak district na ci zone yi nga xam ne ni vraiment résultat yi rafetoon na fi ba donc yooyu c'est des activités yoo ne duñ ko fàtte. nous sommes là pour le démarrage d'un projet qui est grâce là grâce à l'appui de l'agence catalane de coopération au développement ainsi que au fonds catalan qui est le regroupement des différentes mairies de la région Catalogne. Alors euh, c'est un projet qui a deux volets. Il y a un volet plutôt centré sur la santé, notamment distribution de kits d'hygiène et sensibilisation communautaire. Euh, il y a aussi le volet pour l'appui aux, aux, activités génératrices de revenus des femmes qui ont été impactées par la COVID. Donc je voudrais eh, remercier la commune d'Embaké qui a soutenu le projet, également la Croix-Rouge sénégalaise eh, grâce à, laquelle le projet a pu euh, démarrer, et aussi au comité régional et au comité départemental de la Croix-Rouge sénégalaise d'Embaké.